le décembre ci arène nationale Diofi production ma woote ci combat combat jànk combat espoir di dox ci diggante Abou Ndiassé ak Guiro Séras muy première édition drapo collectif national des prestataires agréés par la Sénélec di drapeau bi ñëpp di xaar mu ne ma caatu kayre dana fa laaleeg càndum 2 loolu mooy drapeau PDG Jibi Dia bébé garga di fa laaleeg Bib Diop ñu ne loolu mooy drapeau CNPE di consortium national des prestataires de l'énergie Cheikh Bari di laaleeg Kanabas Kirikou ak Boy Silla Viengolo ak Marley Junior l'enfant de Morola ak Boy Ndiaye sóoraaleeg caatu Tunduba caatu Mbokkal ak Sita bu ak Boy Seydi midi entrée ba mu ne supporter 2000 francs amateur 5000 bu dee loose 10 000 francs animation ba ñu ne Momo Ngom moo fas yéene feggoog Ndeye Fatou Adama Jali ñu ànd ak établissement Touba Darou Rahman ànd ak Harmonia ànd ak Boisson King ànd ak Sapronet CNPE seen pass ak microsen le 9 décembre ci arène nationale diggante abu Ndiasse Guiro Seras ñu seetaan ana kan mooy xuus jàll ayca jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel seen chaîne bi di Bawal TV Naar Fall mu ngi leen di nuyu di amaan mbégte ak contentement di jàkkaarloowaat ak yéen mbokk ñun lii ñëpp di siyaar ñëpp nii kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal ñu faatu yàlla yërëmën xaareen aljana ñu tawat yàlla yàlla fëgg seen bopp ñu ci ab ginnaaw yàlla leen suñu borom génne bañ dellusiwaat suñu biir ñu leen koy defal comme ni leen ko daan defalee mbokk yi nee leen fépp actualité làmb nekk dugg waxtaanee ko yéen ñi nga xamante ni yéenay safoo seen chaîne bi nga xamante ni mooy Bawal TV neneen leen saa su ne ci lu leen bégal ci leen di dox waaye mbokk yi tey yaakaar naa kii ñu seet si kenn doot ko laajte ci làmb koo xamante ni yaakaar naa gars yi namm nañ ko amateurs yi namm nañ ko sénégalais yi namm nañ ko ñu ñëw tey fekk ko fii ci koo koy kan en 2000 ñu fekk ko ICRI ZAP muy entraîner di entraîner ñi nga xamante ni ñooy xale waaye moom it macha allah ko xool xam ni ba léegi fa mu newoon ma nga fa duñ def lu dul jox ko mu wax euh, nuyoo ñu dugg ak moom ci waxtaan bi l'an 2000 nuyu nañ la ziar. mooy maa leen di siyaar di siyaar àdduna bi yëpp di siyaar chaîne bi Baol TV sama mbokk bool bool la xam naa waaw ñu ngi ciy di nuyu suñu mbokk bool bool yëpp nuyu waa Lambaay waa Patu xam nga képp ku fépp fu bool bool nekk rek ñu ngi lay siyaar bu baax a baax di nuyu suñu mbokk séeréer yi waaw sim naa foog la séeréer fop boo dem naa séeréer rek may sim naam gonof fay simangolof ah di nuyu Sénégal yëpp ah di ñaanal ñëpp jàmm di ko saako ñoom di nuyu waa bu baax a baax particulièrement di nuyu waa ginnaaw <laughs> xam nga waa diaspora bi yëpp xam nga gars yi voyagé xam nga ñoom Mortala ñoom Fallou ñoom Galas xam nga ñoom baay Sidi ñoom Vieux xam nga maam Cheikh waa écurie bi sama gars waa écurie bi yëpp ñoo ngi leen di siyaar di profité di ñaanal maa di combat bi mu jëm ni yàlla may ko si ndam xam nga le 16 lay bëre quoi ñoo ngi ñaanal waa écurie bi yëpp di nuyu suñu manager ak suñu coach Zal waa écurie bi yëpp ñoom Ibra ñoom Kool xam nga booy waar gaa yëpp ñu nekk si écurie bi di nuyu sama yaay bu baax a baax. di ñaanal sama papa yàlla xare ko ajana te jégal ko ak bépp waajur bu jiitu ci rek ñu ngi lay siyaar bu baax di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan si réew mi aussi jàmm quoi élection yi jëm yàlla def si jàmm xam nga kii gañe gañe quoi. am na solo nuyoo bi am na solo en 2000 ñu ñëw fekk la tey fii ci Ikirizab ngay entraîner di entraîner waale xale yi mu mel ni en 2000 fa ne woon ba léegi ma nga fa. non ñun ñooy entraîner yow ba léegi waaye def deux séances. Ah. tey bi may woonoon suba maa ngi woon géej géej la ñu waroon defee émission bi. Ah, ah. mais yàlla ak dogalam quoi xëy na lii moo gënoon xam nga mais ñoo ngi ñoo ngi ci li ñu war a nekk daal affaire yi moom yaa ma gën a xam. waaw yéen a ngi a nekk. waaw ñoo ngi ci li ñu war a mais l'an 2000 yi namm ko lool ak l'an 2000 li mu def ci làmb macha allah def 17 combats ñu jékki-jékki waaw 14 victoire ñu jékki-jékki l'an 2000 mel ni xamuñu lan la gisatuñ ko. non xam nga rek làmb moom làmb lu ñu ko waxee rek làmb dafa bëri ay ay courtier xam man ay courtier laa leen tuddee quoi. waaw lamb dafa bëri courtier lamb lamb ji léegi kenn nekkatul sport normal quoi bu njëkk ba lamb ji naanaa ne ñoo doon bëri comprendre nga léegi moom xam nga foog nga bokk ci ay lobi wala mais yaakaar naa nag ak niveau promoteur yi ñëw nii affaire bi dina changé quoi. waaw courtier lan nga tuddee courtier. mooy gars yi gars yi gars yi nekk ci kaw rek gars yi nga xamante ne xam nga liggéey ñu dara soo waxee dañ lay wax ne ñun làmb bu tasoon ñu dañuy dem def suñu métier te amuñu métier ah làmb ji mooy seen métier. li ñu xëyee mooy loolu si affaire làmb rek la ñuy dox ba ngoon jot. comprend nga chaque dimanche ñu am si dara parce que combat yi dañoo bëri. sooy def chaque dimanche soo amee comp soo amee ay mbër yu bëri moom mun ngaa bañ a liggéey beneen liggéey. waaw mais ñooñu nag ñooñu nag du ñuy ndaanaan yi bëri du leen arrangé. parce que ndaanaan ñu bëree lu ñuy bëri rek ñoom mun nañoo bañ a am lu ñu bëgg quoi. waaw su ma la déggee courtier yi mooy ñi nga xamante ne ñooy taxawal combat yi wala promoteur ngay wala financier. am na ñuy taxawal combat ñoo xamante ne du ñu ay courtier mais courtier yi suñ déggee seen suñ déggee tur courtier rek nañ xam ne ñoom ñooy courtier yi. man Zal. Zal Zal Ba waaw. Zal Ba waaw. Mhm. mais l'an 2000 yi xamoon ko ci làmb mu ci doon def macha allah performance yu am solo yaakaar naa ba muy mujj bëre digganteem ak Foruz la woon waaw Foruz nga mujjee daan mais di ba nga bëreeg Foruz ñu jékki-jékki combat yi kale ci l'an 2000 la ci manager am la ci promoteur yi ci lan la. non xam nga mun nañ ko mun nañoo wax ne si manager bi la mun nañoo wax ne si promoteur yi la. xam nga mais du ci man quoi. xam nga aussi tamit mbër moom buy entraîné moom bëri rek lay bëgg parce que mbër bu bëriwul moom daanaka rek mooy mel ni commerçant bu jaayul rek waaw ñun moom ay marchandises toog lañ di xaar koo xaale xam nga ñu bëri mais suñu gisul loolu aussi duñ tere di entraîné lu ñu war a mais dañuy jéem a jéem a outil lu ñu defi benn affaire bu ñoo xamante ne dañ si mun di xam nga waaw business su bopp quoi jéem a liggéey xam nga doole xam nga parce Sénégal lañ nekk quoi aussi. waaw mais ci biir 17 combats yi yaakaar naa lan 2000 bëri na ay champion yu bëri daan ay champion xale bi mujjee bëre ki dem Alioune Seye su ma juumul yéen ñaar laale ngeen. Alioune Seye waaw daan naa ko. bëri ma daan ko waaw. ak yeneen xale. waaw daan naa daan naa ñu bëri ah <laughs> daan naa def naa def naa ay combats yu bëree bëre bëri yu méttee méttee métti boo xoolee ay fi ma jaar waxuma ne ñu fa ñu bëri jaar mais mbëri ma daan gaa yu bëri dañ leen doon daw. ba si super super super étoile xam nga gaa yi fii waaw gars yi ñu ko woon. étoile bu Lansar waaw da doon bëri di xeex. Mhm. macha allah xam nga waaw di dóor di bëri di xeex xam nga yàlla may ko kattan. Mhm. xam nga yàlla def ñu dugg kalaaf ay Saalum Saalum ay Bébé Saalum. xam nga ay Alioune Seye ay Mansour Diop xam nga ñoom bëri bëri nañ de. <laughs> waaw yaa ma gën a xam. Uh-huh. lan nga nekk benn uh, champion boo xamante ni ndaanaan kul fadil boo xam ni sénégalais yëpp. nangul nan la ko tey suma ma doon laaj ci sa carrière lan moo la ci gën a marqué lan nga may wax. non man moom boo xoolee sama carrière lamb instant bi mun naa ne pour man defaguma si dara quoi parce que boo déggee ma loolu li ma li ma gënal bëgg si làmb defaguma ko. parce que mooy ñi ma bëggoon ñi ma bëggoon ñi ma bëggoon daan ba léegi daanu ma leen. ñi nga bëggoon daan. waaw ba léegi daanu ma leen quoi ñi ma gënoon bëgg daan daanu ma leen. ñooñu ñaan non instant yi xam nga rek doo doo tudd seen tur quoi <laughs> waaw doo tudd seen tur mais ba léegi daanu ma leen. moo tax ma ne dafa waaw ba léegi ñoo ngi ci làmb ji waaw ñoo ngi ci làmb ji moo tax bëgg naa leen daan mm-hmm. bëgg naa ko quoi ah, kon ñu bëri ñu doon yaakaar ni l'an 2000 dafa bàyyi làmb bëreetul l'an 2000 ba tey bàyyi bàyyi ma làmb de sama bàyyi làmb essence yi mooy loolu bàyyi làmb teel na ci man teel man trop mm-hmm. yee parce que làmb boo xoolee suñu objectif mm-hmm. atteindre ante kii guñ ko quoi atteindre guñ ko uh-huh. maanaam amaguñ ci liñ bëgg uh-huh. waaw moo tax teel na pour ñu bàyyi ko quoi ñoo ngi ñoo ngi see gum rek lu ñu yàlla may ñu jël aussi mhm. waaw. macha allah mais ak euh, l'an bu doon defaat retour am day jël ay moroomam wala ay magam wala ay raxam. non man xoo boo xoolee man fi man tool si laa nii instant yi ku ñëw ma jël parce que amul tax nekkul carrière bu woon mais damaa gëj a bëri damaa gëj a du dëgg. léegi man 2019. 2019 waaw combat Eumeu Sène ak Bombardier bi ko Eumeu Sène di daan waaw. man maa bëre woon spécial bi maak maak Forouge ma daan ko jël bu rëy. mais xam nga mais dara gars yi adversaire yi nga war a bëreel. da leen di jarata yow nga jël ki nga daan. mais yow la jël quoi moo lay won ne làmb ji. mooy loolu waaw dafa bëri lu bi dafa bëri ay ñoo xamante ne xam nga. ba pare promoteurs yu bees yi suñ ñëwee léegi kon ñu bàyyi leen ñu choisir mbër yi parce que yi en général yu ñëw ay amateurs la ñu yomb nekk. mais da gis ñoo xamante ne dañ leen di gëmloo ne man maay taxaw maa xam mbëri fekk dañuy sóob ñu yàq làmb ji ñu yàq làmb ji si biir làmb ji lañ nekk aussi comprendre moo tax CNG foog ñu segg leen ko quoi yow mënoo nekk manager bëgg a nekk promoteur bëgg a nekk membre CNG xam nga la bëgg a nekk bëgg a nekk facilitateur xam nga loolu mënul nekk mënoo mënoo mënoo nekk mënoo nekk yàpp ba pare bëgg a nekk jën mënoo di xeex bëgg a àtte sa bopp aussi loolu mënul nekk macha allah waaw kon tey jii suma ma la doon laaj loo xamante ni euh, métti na l'an 2000 ci làmb ji te ñu war koo changé te mu bokk ci nga xamante ni day yàq làmb. non mooy cumul de fonction yi làmb dafa bëri ay cumul de fonction. parce que tey jii man su ma cumuler fonction. comprendre nga du ma du ma du ma du ma du ma du ma def loo xamante ne du ma ñàkk a arrangé chaque instant li may lii sama faveur la jëm. te làmb nag organisé organisation xamante ne am na loo defee am na la siy fekk. comprendre nga est-ce bokkul ak bokkul ak lu mel ni ay ni ma la ko mën a waxee ay ay justice ay droit ay yooyu bokkul xam nga yooyu soo cumulé fonction am nga ay daan la ma amul daan dangay ngay tibb rek tem yàqal kii dóor kii xam nga nettaleel kii dara te yow yow yow xam nga yow boo liiree sax di nga gis quoi parce que da gis tey benn nit ànd ak kii tey tagal ko ay maamam suba mu ne kooku baaxul ànd ak kee xam nga si même pas du sax benn cinq kii baax ba si yàgg bon ci yow jékki-jékki non moo tax ñooñu nag genre yooyu tant que ñoo ngi ci làmb ji ndaanaan duñ bëri parce que ndaanaan bëri du leen arrangé mm-hmm. waaw parce que làmb tey dans les normes ndaanaan suñ fëlee ba si yàgg ñoom courtier yooyu dañuy fexe ndaanaan yooyu fay mm-hmm. su ndaanaan yi fayee dañuy créer waat ay booy mm-hmm. gëm la ne dama lay yéegal si kaw comprendre nga waaw parce que si ñoom ci yooyu la ñu mën amee parce que tey jii ñu ma la ko mën a expliquer ku mel ni Bombardier mënatoo koo nax si làmb ku mel ni Balla Gaye mënatoo koo nax et cetera ku mel ni Ama Baldé ay kii ñooñu mënatoo leen nax comprendre nga parce que yeewu nañ léegi nag ñooñ ñi nga mën a door mooy booy soog a parce que dañuy bëgg yegg si ñooñu léegi balaa ñoo yegg ngay lijjanti li ngay lijjanti moo tax en général ndaa ndaanaan yu bëri dañuy fay ñekkul Alioune Seye waroon na dépassé fii Alioune Seye mën na bëre mën na xeex day indi mbooloo te day fecc mu neex lan moo ko teree dem. moo jaaxal ñu bari kay. mais courtier yi la. <laughs> courtier ñoo ko téye kon courtier nan bàyyi suñu làmb ji. dañ ko war a bàyyi. te duñ dégloo émission bi nañ xam ne xam nga gars yi sib nañ leen quoi. Uh-huh. duñ tudd seen soo dégg émission bi nga xam ne yow courtier nga wala doo courtier. parce que tey jii nga gis benn mbër tey bu war a jaar benn 6 millions wala 7 wala xam nga promoteur bi da lay leer promoteur mun na sax nga fexe na ko non kii boo ko joxee 2 bëri ndax sa intérêt bopp ndax yow promoteur benn 500000 bu la jox wala 250000 nga lor métier jàmbur teewul kooku noonu moo la tax a siiw comprendre nga ñoom buñ jaayee bu leen di seetaan nii xamaraan mbëri ñoo tax ñoom ay at ci nekk nekkuñu woon dara kenn xamul leen woon léegi day ñëw si làmb ji di sol ay grand bu yi ngand di lii xam nga soo rombee sax di lay jéem a jaay affaire te yow. loolu yëpp li tax ñu am ko kii dugg ci géew bi. ay at ci ay at ci ginnaaw làmb ji saa nii nañu waxante dëgg vaar. VAR kan moo ko indi ci man maa daan Malal Ndiaye. Uh-huh. RTS làmb làmb làmb def lañ la woon en direct. ma daan Malal arbitre yëkkati loxoom ma siisu ci biir géew bi gars yi dem xooli VAR bi. maa ngi koy fàttaliku. yee Iba Mar. Uh-huh. VAR nañ ma ko santé. ndeysaan VAR lit simple la. barke borom Touba. ndeysaan nañ ma ko santé ma kaas ko fu nekk nag ne loolu dafa war a am. Mm-hmm. comprendre nga ba léegi yàlla def na xam nga CNG bi indi ko. mais tey jii làmb mënoo mënoo lu ma la ko waxee rek yow mënoo nekk promoteur bëgg a nekk manager bëgg a nekk membre CNG yow mënuñu lay atte tamit ngay nga naan da ngay atte sa bopp loolu mënul nekk CNG loolu loolu loolu moom responsabilité CNG nañ jël nañ jël seen i mesure parce que ñoom dañ leen dénk làmb pour ñu yëmale ko kanam mais pas dañ leen koo dénk pour ñu bokk kook ay nit di séddoo aussi comprendre parce que lii lii nii ñoom tuddul séddoo quoi mais su yàggee ñun mbëri dañuy jàpp na ñoom dañ koy séddoo parce que tey lamb bi xoolee ñuy bëri rek ñooy bëri ah parce que tey jii réew mi ñu noo ko bokk nañu suñu neexoon ñu dugg si gaal yi dem comprendre te weesoogul parce que saway xam nga boo sonnee ñu nekk di nga ko tante ah. waaw ñu nekk di ko xalaat di nga ko xalaat mel ni l'an 2000 def lu ne ci lamb amateur waaw ama man dugg fu ne ñu lay laaj yàlla xam na ne mosuma dem entraînement wala ma dem lamb gaa yi waxuñu ma foo nekk mbër lan mooy problème bi mais leen man sax xaw ma luy problème bi problème bi ko xam na ma ko wax <laughs> kenn xamu ko comprendre nga mais mbëri nañu war a ñëw ñu bëri suñu biir su ko defee tey jii yow làmb gis ngaa ñaari champion yu bëri nga xam ne ñaar nii kii dafa mën a bëri mën a xeex kii mën a bëri mën a xeex loolu làmb yi bëree bëri bëri kii su mënee bëri kii du mën a xeex kii su mënee xeex kii du mën a bëri su ma la déggee daal mooy fi ñu la nii làmb lu bëree bëree bëri changé nag làmb ji dafa changé dafa changé maanaam amuuru làmb dafa dañ man bëri na samay supporter ay ancien supporter yoo xamante ne billaahi dañ ma naan booy gis naa bëri wala nga jëg bëri gis naa seetaan làmb barke borom Touba. billaahi wallaahi. sànni lan 2000 super étoile. am pagaay xam nga làmb bu njëkk ba yow. boroon dem doo xalaat dara da ngay xam ne for force lamb ji day neex parce que ay champion ñoo fay nekk di bëre comprendre nga mais léegi sa waay ay xam nga ay yaa ma neex rek ay nga gis mbër yoo xamante ne suñ téye ndigg xamuñu def suñ téye tànk xamuñu ñu def suñ téye seen tànk maanaam xamuñ dara ci lu ñuy def. macha allah comprendre nga. mais xale yi nga xamante ni jamono ji ñoo nekk ci làmb ji di bëre l'an 2000 kan la ciy seetaan gis ci boppam na xale bi ku mën a bëre la. soo soo bëggee dégg-dégg am na ay champion yu mag yu yuy génn ci quoi yu yu yu lukkee ko yu bëree bëri yu ci mel ni ay Talfa ay booy boobu dëkk booy bee dëkk Grand Yoff booy bee dëkk Yaraax booy bu gàtt boobu nu mu tudd sax. non bokkul ak wës même wës sax si la bokk am na beneen booy aussi. war na bëree si comme si combat le cinq ñoom soq bi tur bi laay fàtte chaque jour ma gis ko géej. du Valdo. non Valdo Valdo Valdo sax si champion yi la bokk. daal xoolal Valdo boobu noonu. gars yi daf dof nañu ba mu bëgg a fay rek. te Valdo yow koo xamante ne day bëri di xeex. ñu bëgg koo fay tey jeune 2 kenn da ko daax bëri Pikine. tamit loolu waaw loolu tamit loolu tamit gars yi. ñuy communiquer au niveau de Pikine bokk am nañ ci ay responsable nañuy suñuy communiquer di tudd ay Ama Baldé ay Sokh nañuy tudd ay l'an 2000. Mhm. comprendre nga di tudd ay Valdo di tudd ay Tyson 2. Mhm. parce que ñoom ni ñu fi ñëwee ñun noonu lañ fi ñëwee rek comprendre nga Pikine Pikine ñëpp la ñun ñëpp ñooy défendre couleur bi. Mhm. buñ ko yemalee si trois personnes ñu ne val kii diw diw diw soo déggee ñooy Ama Baldé ay Boy Niang Sokh te pourtant waaw dafa yomb ko waa ñoom ñoom message bi maa ngi leen koy suñuy suñuy defati appel ciy limaale. waaw parce que ñun voilà parce que ñoom drapeau fu ñu koy yóbbu ñun fa lañ koy yóbbu. te pourtant taxawal nañ benn 200 pour cent ne 200 pour cent. loolu non non li may wax nii loolu nekkul pour loolu pour ñoom commun ñooñu communiquer. Mhm. suñu communiquer nañ ñu siy dugal. parce que ñun dañuy wax leen tudd. Mhm. te gënuñ ñoo kii gënuñ ñoo nekk champion fi ñu jaar jaar nañu fa daanaka affaire chance la rek. mais suñuy wax nañu nañ ci communiquer waale su ko defee nit ñi xam ne mhm. diw mi moo ngi moom yor na daraapo bi mais duñ jël seen drapeau rek jàpp ne drapeau kii drapeau gën a ñoo nekk ay Pikine waa aussi. am na solo mais pour cent bi en euh, 2000 yëg na ci boppam. non xam nga xam nga xam nga affaire affaire association affaire de comment dirais yëg-yëg la comprendre nga parce que kii mun na na yëg naa sama bopp kii ne yëguma sama bopp comprendre nga mais munoon na gën a munoon na gën a dox. waaw soo déggee ma ne munoon na gën a yaatu mooy dans les waroon na am benn benn benn lieu boo xamante ne. chaque jour wala wala am jour yoo xam da ngay dalay leer na soo fa demee di nga fa fekk Ama Baldé mhm. soo fa demee di nga fa fekk l'an 2000 di nga fa fekk Tyson 2 di nga fa fekk Jip di nga fa fekk Boy Niang suñu contactul ñu physique mhm. comprendre loolu day gën a defar amitié bi day tax supporters yi gis image yi parce que xam nga image day wax image dafay wax quoi mhm. mais su fekkee tamit dañuy soriyoo image bi tamit leneen lay wax mooy li xew nii image bi day jàpp ne ñii dañoo réeroo donte ak ñoom ñoo ngi wax réeréewuñ sax mais image bi mooy wax loolu. waaw moo tax dañoo war a fexe même bu dee benn géej la xam nga gis naa boo ñaa doon ko def mais doon moon gis leader yi comprendre nga mais leader yi ñoo war di ñëw di jëmal affaire boobu. loolu dafay am lu muy joué. si si si kii bi si si deux cent pour cent boobu waaw. mais su fekkee boo ñaa su amee combat ñëpp ñëw. su Ama Baldé amee ñëpp ñëw l'an deux mille su amee kenn du ñëw. te jën deux su amee kenn du su yàggee day su yàggee nag léegi am na koo xamante ne Pikine la dëkk. Tyson 2 rek la bëgg kooku day commencé di wax te wax kenn xamul fu muy dem xam nga yàq dafa gën a gaaw defar aussi te Pikine tamit dafa bëri ñoo xamante ne dañoo am jot wax dañoo am jot bi waa dañoo am temps bi comprendre nga léegi yooyu noonu ñoom ñoo ko war a éviter ni ñu koy éviter mooy ñu ñu defar seen communication en même temps di lii booy ñaa wax na si lu am solo si signature am bi passé comprendre nga loolu xam nga mook mook Ama Baldé kii lay bu di daan jox kii kii daan jox kii wala kii daanu jox ki kii daan. kii daan ma gis ñoom ñaar jamono yi ñu bokkoon adversaire coow li bari lool. loolu man yàgg naa ko wax Boy Niang ak Ama ku bëgg Ama Baldé da war a bëgg Boy Niang far force la maanaam soo bëggee Boy ñaa da war a bëgg Ama loolu force la. parce que ñoom sport bi ñuy def sport individuel la. mais couleur bu ñuy défendre couleur gox bi la quoi comprendre nga léegi yow mënoo mënoo mënoo bëgg kii bañ kii. waaw même nga nëbb ko sax mais soo ko fësalee rek day mel ni soxor waaw non dafay mel ni soxor quoi xam nga tamit tamit aussi mënul lekk lu lu wërsëgam ah, Ama na ñu mu war a daan am na ñu ko a daan am na ñu ko war a daan am na a li war a am am na ba pare yeneen yëpp gars yi ñoo fi nekk di wax ay xam nga li la ku nekk da ngay analyser rek xam xam nga laa nawet mën na wax ne boña moom mun Lo fekk Modou Lo moo mun boña mun ngaa ne diw moom fekk analyse la moo ko xam mais su la neexee nga ñaan ngeen ne Boy Niang yàlla na ko yàlla may nam am nga si droit plein droit waaw. macha allah <laughs> tey nan nga gisee combat bi nga xamante ni war na dox ci diggante Modou ak Boy ñaa seetaan nga seen face to ñoom ñaar waxante na. non man seetaan naa combat Modou Lo yëpp comprendre nga seetaan naa combat Boy Niang aussi Boy Niang bu mu bëri mbapat ba léegi maa ngi seetaan Modou Lo seetaan naa ko mbapat Iba Mar kii di ko fa génnee nu mu tudd sax jama jële bi sax seetul trois appels def. ar waaw waaw di daanu ko de trois appels la def ar bi jox ko jël maa ngi woon stade uh-huh. comprendre nga ku mën a bëri la booy ñaaw seetaan naa ko mbabat day jaay tëysen uh-huh. mu ko mais man sama favori booy ñaa ci la ñaa mooy sa favori waaw ah. wax nga ko favori ah non dégg li ma la ñoom li ma la xëy dafa leer seetaan naa kii mbapat ba nu mu nekk fi mu yegg uh-huh. kii seetaan naa ko mbapat ba tey man sama favori ma ne la booy ñaa mais avantage avantage booy Niang ci digganteem ak Modou Lo. xam nga xam nga nag ñoom ñaa ñëpp ku nekk ku leen ne Modou Lo mënul daan Boy Niang da ko faral comprendre nga. man duma wax loolu de duma wax ne Modou Lo daan Boy Niang man duma ko wax mais sama favori man ci làmb ji Boy Niang la. waaw ñoom ñaar yëpp su ma leen xamul ma teg seen affaire yëpp seetaan leen ba pare hmm. damay jël Boy Niang ma jox ko favori waaw. mais mën nañoo xaar ñëwaat seen combat xeex yaakaar nga ko. ñoom ñaar combat bu neex la ñu war a bëri parce que ji nga ñoom ñaar ñëpp booy ñaar dañuy wax day calcul mais mënuloo ko dàq calcul ñoom ñaar ñëpp dañuy calcul combat c'est kii dafa gaaw kii day répété kii nag day xalaat ba pare ñëw répété li muy répété comprendre nga ñoom ñaar ñëpp ay mbë ay ay mbër waada lañ ku la nekk diw mënul daan sa morom dalay nax mais man sama favori booy ñaar la. waaw wax naa. foo teg favori bi. ah foo favori bi fi nga façon de faire rek xam nga li ma la mooy kii yàgg naa ko seetaan muy bëre kii yàgg naa ko seetaan muy bëre. su ma la nee kii mooy favori kay am na fu ma ko teg. mooy favori waaw boo nee favori ko koy favori macha allah. mooy sama favori waaw. non am man kay. sama favori waaw dégg ni moo mën. déet dañ koy daan favori mun nañ koo waaye favori favori lu muy perte sama ëpp. mës nga jël am combat jox la favori nga ñëw ñax. kan man. Uh-huh. xanaa maa garga mboose. yaa garga. waaw maa garga waaw. ndeysaan ñëpp ne en 2000 la ko mën. waaw waaw mu daan na. waaw loolu day am ci làmb quoi. Uh-huh. loolu. loolu moom du bett sportif sportif moom nekk favori ñàkk ko moom du ko bett quoi. macha allah mais Boy Niang combat bi est-ce que du métti ci côté ak li Boy Niang ak li Modou Lo def biir Pikine dugg fi daan Eumeu Sène ñaari yoon barki Demba Ndiaye mu daan Ama. lamb de sport lamb de sport collectif lamb sport individuel la Ama moom moo ko daanu donte waa Pikine yëpp ñoo ngi ko doon sotle nag pour mu daan ah kii kii nu mu encore Eumeu Sène daan bi ko da kii daan moom la daan Boy Niang nag daa war a dem bëri jël boppam. est-ce que nga. léegi nag loolu loolu noonu avantage sax la war a nekk si mhm. man mënoo daan kii daan ki bu ñëw si man saway soo doon soo doon soo dajoon fee cinquante fii nga daj fi cent jàppal na fii mun nga am cinq cent. te noonu la war a demee boo ñaaraal daa war di contact. Mhm. di defar ab domino yi. lamb war faa indi benn benn donju gerees wala wala wala wane nit ñi ne damaa sonn. mais combat bi ak combat am ak Balla ban moo gën a métti. non bee moo gën a yomb Balla Gaye moo gën a yomb. moo gën a yomb waaw bokkul sax. bu rek Modou Lo moo gën a métti. gis mu indi si combat boo xam ne entraîné wul mooy moog Bombardier parce que dafa indi volume koofur ba dara nekk fa. waaw indi na doole quoi mais liggéeyul cardio bi mais à part ça ma koo gis mu indi combat boo xamante ne te te yaakaar naa bii mooy raw. waaw ba tey boo ko doon boo ko doon moytuloo ci Modou loo koy moytuloo. kan Boy Niang moo ko doon moytuloo si Modou Lo non Boy Niang nag lu ma koy moytuloo si Modou Lo du ko wax fii de. Ah. <laughs> waaw xam nga Boy Niang dañoo maa ngi moom ñoo bokk entraîneur boxe. comprendre grand cheikh maa koy nuyu mais maa ngi moom dañuy dañuy dañuy dañuy yenn saa yi dañuy déggante waaw lu si gën a bëri waaw. ba nii nii. Oh non sama booy la. booy ñaa koy jeexal na wax. gi bett la non non Boy Niang man premier jour ma ko njëkk gis boobu mooy am combat ak Brise de ñu dee Saalu Bantamba mel na ko booy sa papa yaa ko dàq bëri ko waa Pikine bu la bu la kenn wax ne bëri lii ba nga bëri ko ñii di lay conseillé nekk seen ginnaaw sa ginnaaw yëpp boobu mooy ànd ak mel na ko même grand bi yaa ko dàq balaa nga leen di déglu waxal defal li nekk si yow def ko ba pare balaa mbër mel na ko yi ko def balaa ngaa pare mu toog mais laata boobu Modou Lo ak ki nga xamante ne mooy Ama daje nañ fi euh, Modou Lo daan ko l'an 2000 tey bu ñu doon wax erreur bi Ama Baldé def ba Modou Lo am loolu ci. Modou Lo da koo gën a pare rek. comprendre nga xam nga làmb sport tamit sportif day sport quoi Modou Lo dafa gën a pare ci Ama Baldé physiquement sportivement su fekkee da nga xam sport waxuma nag nga far quoi ngay waxee ay affaire Pikine ay affaire yooyu soo faree garaawul mais soo farul su la wonee Ama Baldé woon la Modou Lo xam ne kii mooy favori kii waaw man yàgg naa wax sama waaw parce que damaa xam Modou Lo ni muy bëree ak booy bi état bu mu indi comme booy bi jot naa ko téléphone sax mel na ko defaral cardio bi contact ab abdominaux yi comprendre nga mais da ngay xam ne bokkul quoi kee dafa gën a pare moo tax mu perte combat bi mais loolu wul dara si yoonam aussi tamit parce que Ama Baldé fi mu yegg si làmb nii morom yu bëri bugg nañ faa yegg yegguñu fa comprendre nga ñoom instant ñoom ñooñu nekk si kaw amatuñ kenn daanatu leen comprendre nga dañuy dem ko combat ji nag perte combat mais am nga làmb soo demee booy fay ko cent kenn daanatu la. saa jee yaa daan. comprendre da ngay perte nag quoi. Mhm. waaw mais daanu amatul. mu juge ci euh, Modou Lo war a dëgmal combat digganteem ak Gris Bordeaux. mu war a am la sept ans. waaw man xama xama nag loolu mos naa wax sama benn interview nee naa ne Ama Baldé combat am ak Gris Bordeaux moo gën a dangereux combat am ak Modou Lo. moo gën a dangereux xamul tax parce que lii laa doon suuraale quoi. Mhm. parce que imagine Ama Baldé dayoo bu mu am. waaw léegi ba ma perte contre Modou Lo. mos naa ko wax benn site Pikine Pikine TV xaw ma su ma juumul léegi imagine léegi perte na contre Modou Lo léegi war a dem contre Gris Bordeaux. ñu ñëw day am leneen li muy ñëwaat. voilà léegi dafa garaaw loolu te xam nga Gris Bordeaux tamit aussi du nangu tamit ah ñu ne ah ko mun rek ñëw rek daan ko rek mu dem. Mhm. est-ce que ma la léegi laam boobu nag moo gën a garaaw si tam est-ce que Ama gars yi ko woon combat ba ëpp digganteem moog Modou Lo. bii bu ñu defee noonu est-ce li ma li may li may wax rek ji nga Pikine dañoo mun dañoo mun seen nit ji nga Pikine xam mus naa ne mos naa ne muusu Pikine moo mun gaynde bu dëkk parcelle gars yi gisee ko neneen mais du loolu ji nga Pikine maanaam soo fi jëlee woon benn benn boy bu ndaw nga war ko boole jëkk Modou Lo waa Pikine tant que arbitre sifflé wul waa parcelle dañuy jàpp ne boy bi day daan Modou Lo ñoom dañoo mën a far quoi dañoo mun seen nit foofu laay waxee ñoom maanaam Pikine dañoo mun seen nit chance boobu chance boobu la ñu ëppalee gox yu bëri suñu la faralul nag faralul la mais suñu la bëggee non mun nañ laa yóbbu haut niveau gisoo nongolo yaa ko fi ba léegi yaa ngi koy dégg ba léegi nii yaa ngi koy dégg <laughs> Pikine dañoo mun seen nit comprendre nga voilà ku ñu àndal moo tax en général mbëri mbëri dëkk Pikine fi dañoo war di def effort si lu si gën a bëri si sport mhm. parce que ñoo sport ah maanaam nga nga nga nga nga joxe ba ñàkk loolu garaawul si sport xam nga lan moo garaaw joxe woo ba pare ñàkk loolu loolu moo garaaw. bëre ba daanu waaw bëre ba daanu garaawul Ama Baldé Modou Lo moo gën a pare mais bëre na de. parce que ba ñëw nga dox si kawam waa ji tóor la jël la wër la ndox xam nga. bëri na quoi comprendre nga. dégg naa la baax comprendre loolu garaawul si sport xam nga lan moo garaawul si sport. Hmm. nga dem bëreewoo xeexoo arrière bañ daan la wala ñu doola nga daan nga dem ñibbi toog di xool gars yi nii xam nga yow sax di nga xam ne. non si Lac de Guiers moom li ma waxoon si benn émission Siteu Lac fa. comprendre nga xamal tax bëre am fa Lac de la ñu waxoon ne moo war a ñëw rek fël Siteu comprendre nga Siteu Lac da ko ëpp poids ëpp ko doole Siteu dafa waroon ñëw mbapat ak Lac de nga mais soo bëggee boxe ak moom rek laamu ji dafay yàq boo xoolee laamu ji amul jàpp tànk comprendre nga amul bët Siteu essayé na bët dañ koo sànni duggul comprendre Lac songul benn yoon Siteu daa dox si kawam mais song ko day dox si kawam booy bi song ko parce que comprendre nga booy bi loo song da ko waroon bàyyi mu yegg si nga def li ngay mu def waaw waaw wala waaw non Lac de Guiers uh-huh. wala moom mu congu booy bi sànni ko fële wala euh, ëpp doole gars yi doon ci Lac de Guiers yow gisoon ngeen moo ëpp doole Siteu moo gën a diis mais ëpp ko doole su ko ëppoon doole waaw Lac de Guiers li mu bëri nga waaw la non non d'accord ko de Lac de Guiers dafa war a daan Siteu dans les normes waaw da daan parce loolu Sénégal yëpp wax loolu moom loolu la wax sax signature bi mm-hmm. comprendre nga Siteu instant bi dafa am mm-hmm. parce que yow ñëpp bu ñu nee kii tey mu rey la tey mu rey la nga dem ñëwaat ak sa bakkan wane nga jàmbaar bi la tax a indi yaafus indi waatul la. dëgg la comprendre nga moo tax mais lamb yi moo tax ma ne yi foog ñuy boole ñaari ndaanaan. Mhm. gis nga combat Balla Gaye bu neex a ngi noonu. Balla waaw su taxawee gars yaa ngi koy dox noonu dégg naa. waaw gars yaa ngi koy waxtaanee loolu combat bu neex la parce que xam nga Balla Gaye day bëre. Mhm. soo bëree day bëre soo day bëre waaw loolu combat la. combat bu neex la bu garant yi nañ may booy chance. léegi wax nga ko Balla Gaye Siteu combat la mais en 2000 ak kan mooy combat jamono ji. gars yi man man instant yi ay Gris 2 laa soxla ay franc ñooñu laa soxla. François Gomis waaw waaw. lan 2000 franc barke borom Touba. combat yi laa bëgg de. Gris 2. ay Gris 2 waaw. combat bu dëgër man combat bu dëgër këcc laa bëgg bëgguma ko. nag. Coense waaw Coense baax na wala Moussa sax. Moussa sax baax na. mais adversaire yi ñu fi lim amul bu yomb de. non mais ak man nag mun na yomb man moom xam nga ma am ak man moom mun na yomb quoi. c'est que c'est que man nag sooy bëreeg ñeneen ak sooy bëreeg man bokkul. mais est-ce que l'an ban xamoon bi daan daan ñoom Alioune Seye ñoom. l'an 2000 bii nag moo gën a garaaw bee. moo gën a garaaw bee moo ko gën a garaaw. téeméeri junni yoon nag. sa retour lan lan mën a xaar. non man damay retour dem daan arène nationale ñëw feet comme dam rek. nu ma gis ci lamb ji nii du ma dem ñu mhm. indi. barke borom Touba waaw yàgg na <laughs> luy loolu luy loolu comme gars yi rek daan indi Pikine pare yóbbu Joal macha am na solo yaakaar naa l'an 2000 li ñu war a waxtaan ak moom yëpp xajul ci émission am ndax waroon nañoo dugg moom ci mbapat bi li mu def ci mbapat rek lépp waaw waaw mais xam nga xam nga tey jii rek li ñuy wax rek li li du si nag bi xëyul si cin bi xëyul si cin bi waaw te ñoo ngi noodu timis quoi uh-huh. ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp xam nga uh-huh. di sant Bawol Bawol TV uh-huh. yàlla def ko télé quoi aussi ñu ngi ñaanal suñu gars yi nekk si diaspora bi yëpp ñoom Baye Sidi xam nga Mortala ñoom Maam Cheikh ñoom Black Alliance bi yëpp ñoo ngi leen di bëggee ñoom Lamine Faye Lamine Ndiaye xam nga xam nga ñoom la xam nga ñëpp ñoom Vieux ñoo ngi siyaar ñëpp di siyaar sama yaay bu baax waa Joal yëpp ñoo ngi leen di bëggee waa Ginaaw Raay surtout waa Pikine yëpp ñoo leen di ñaanal di ñaan yàlla képp kuy am combat daal yàlla may la ndam aussi ñoo ngi ñaanal suñu boy may ko ndam seddu guy xam nga di la siyaar aussi di la ñaanal jàmm bu baax a baax di rafetlu liggéey bi quoi aussi naaj na trop jaajëf am na solo Arfan gis ngeen tey ki leen indil yaakaar naa ne namoon ngoon ke muy l'an 2000 def lu ne ci làmb ba li ndaanaan yu bëree bëri nee naa la ko def 17 combats 14 victoire kooku doo yaafus ci làmb di wax rek promoteurs yi nan geestu l'an 2000 dafa bokk ci làmb te yaakaar naa amateurs yi boo gisee ma ñëw fi tey ana l'an moo ma moo booy samay nopp ba tax ma ne tey il faut ma ñëw fii nga xamante ni mooy ginnaaw raay ikir zap jël si ko waxtaan ak moom di wax rek adversaire yi mu fi lim yëpp ñooñu ñëpp ay adversaire am ndax yaakaar naa ni ndaanaan la ci làmb ku ku yàgg xam làmb xam nga laan 2000 mi ndax yaakaar naa sama caméraman sax ba ma ba ma ma dugg see def na ma waa kii fu nekkoon moom Arfan ndeysaan na mu yàgg naa ko seetaan mu nekk ndaanaan di wax gars yi nañ ko geesu jox ko ci combat di waat ñëpp di bégga sama caméraman Arfan borom guy faatu may ga di ko bégg bu baax a baax di rafetlu liggéeyam macha allah mu nekk xale bu yaro bu neex àndal boo xamante ni euh, du mer te bëgg na liggéey daal di wax gaa yi nañu ko jàppale di wax yaayam am na doom joo xamante ni macha allah ku sañoon jur ko di leen waat bu baax a baax di bëggewaat Tim Kazé fële ca rue Lamine Gueye en fance banque CBAO bi nee naa ñoo jaay tissu yu rafet yi te dëgër boo bëggee jeesineer am na fa fil à fil euh, lafaya lépp luy tissu daal boo fa demee di nga ko fa fekk di bëgge bu baax a baax directeur bi Mourtada Gueye maa ngi koy bëgge di ko jox wàccuwaayam di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen champion jaajëf. le 9 décembre ci arène nationale Diofi production ma woote ci combat xale combat jànk combat espoir di dox ci diggante Abou Ndiassé ak Guiro muy première édition drapo collectif national des prestataires agréés par la Sénélec di drapeau bi ñëpp di xaar mu ne ma caatu kayre dana fa laaleeg càndum 2 loolu mooy drapeau PDG Djibi Dia bébé garga di fa laaleeg Bib Diop ñu ne loolu mooy drapeau CNPE di consortium national des prestataires de l'énergie Cheikh Bari di laaleeg Kanabas Kirikou ak Boy Silla ngolo ak Marley Junior l'enfant de Morola ak Boy Ndiaye sóoraaleeg caatu caatu Mbokkal ak Sita bu Refane jeunesse ak Boy Sey midi entrée ba mu ne supporter mille francs amateur 5000 bu dee loose 10 000 francs animation ba ñu ne Momo Ngom moo fas yéene feggoog Ndeye Fatou Adama Jali ñu ànd ak établissement Touba Darou Rahman ànd ak Harmonia ànd ak Boisson King ànd ak Sapronet seen Senpass ak Microsen le 9 décembre ci arène nationale diggante abu Ndiassé Giro Seras ñu seetaan ana kan mooy xuus jàll